bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu le ba yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihaat wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil aalamin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahaabatihi wa taabiina lahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amma baad ibaadallah ittaqu llaha wajtahiduu ala itibaaci awaamirihi wa ijtinaabi nawaahihi wa huwa al-ilaahu al-waxiid alladi yastahiqu an yucbad walaqad amarakum bi amrin azimin sadara min tilka al-israa al-xaariqa mimma yadullu ala al-aham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 إبهام مما يدل على الأهمية والعظمة ولذلك فالصلوات الخمس لصلوات الخمس منزلة عظيمة عند الإسلام في فهو عماد الدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ويقول أيضا وهو الفرد الوحيد الذي يجب أن يؤدى في كل ظروف والحالات عند المرض وعند الحرب وعند السفر خلافا لبقية الفرائض العينية وهي الشيء الوحيد الذي يبدأ الله به سبحانه حساب الأعمال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وهو الفرد الوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعلم بها الأولاد وأن ندربوهم لأجلها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع ومن هنا فيجب علينا أن نجاهد النفوس على أدائها على كيفيتها وفي أول وقتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها وإن أداء صلاة هي كفارة للذنوب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نحرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول hal dalika yubqi min darani qaalu laa yubqi min daranihi shay'an qaala alayhi salaatu wasalaam fa dalika mislu salawaati alxams yamxu biha alxataaya yamxu llahu biha alxataaya ibaadallah ijtahidoo ala adaai salawaatikum ala awqaatiha wa kayfiyatiha allahuma ahdina ila sawaa'i sabilika wajcalna min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana